médecin bi nee na paa bi feebaram bii mooy loolu quoi bu dundee weer si lay yem door ngeen seen loxo si ko waaye waan li wax nijaay kan moo la fi nara miraas te dee wagoo waaye yow yaa ngi togg seetaan télé man de sa góor gi noonu la ma sonalee feebaram bii mais naka góor gi maa mi ngi tane. nee na ren kay te deewagul xam nga moom bu feebaree ne rek lay wax. waaye wu bébé wuyu ma nang liggéey bi nag kaw rawaa ñi de yoo xam nga ni léegi ma takk la paa bi rek lay xaar sa yaay jàppal te liggéeyloo nii rek ah. gis nga yow bul ma sonal. takkoo bàyyi woo man sama yaay laay dëbbal nii. see yoon a comprendre xam nga sama paa bi dafa feebar waaw docteur bi nag nee na paa bi du ko woote say say moom bëriwul xam naa weer bu ko dundee waaw léegi nag bu deewee ak sama rakk bi waxtaan nañ ba pare du ñuy jaay kër gi miraas bi quoi du jaay kër gi bu ko jaayee sama yaay moo xam naa lay dellu dëkk ba rek parce que moom bu sul bëgg sax ay Dakar sama wàllu man ma takk la si ñu suñu appartement maa yow kese. ah def ci nànk parce que ni ma déggee Omar di wax ak dafa mel ni suñu waay dañ ko àppal de. àppalu lan yéen bu leen ma joomal ana Omar Omar lan la la wax. Omar day waxuma dara Issa la doon waxal. ah parce que Issa nee na ma Omar dafa ñëw fii di ko wax ay affaire jaay kër ay affaire miraas te ngaa wax ak Omar sa doom. yow de yaa ma gën a wow xol yow da xaar sa papa dee miraas bi xaalis bi nga may jël takkee ma ko yow sa papa feebar nga war a xool nu mu wéree ngay wax waxu dee yow mi moom da nga dof torop. dee si dund la bokk. waaw te sama papa xam nga sama papa mag la quoi mag la moom lu ma waroon dund yëpp dund na ko. lay lay la laa kon kay a dégg ana Omar wóol leen